résultat boobu naka la ñu liggéey ñun ñëpp ñu jokkoo suñ loxo naka la ñu liggéey pour gis ne loolu jeexal nañ ko si biir Gambia fii loolu moo war te ñu indi leen fii waaw loolu kay am naa si óolute parce que ñi ma fi dajalee te ñëpp kilifa lañ te am na ñu bari ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw te xam naa ne dañ bugg a gis ne lii jeex na fi moo tax ñu bàyyi seen liggéey bi yëpp tey ñu ñëw toog fi depuis suba ba ngoon loolu rek wane na ñoom itte bi ñu am si mbir mi soo loolu am naa si yaakaar ne képp koo xam ne ñëw na fi tey su demee dina gis ne naka la moo waxtaanee ñi nga xam ne ñooy liggéey si ronam te xam naa ne du ñu am sax seen joboot yi ak ñi nga xam ne seen am di jaamala ak ñi nga xam ne xam nañ ne dinañ ko saari kibaar pour <laughs> jigéen ñi ak ndaw ñu xam ne doomi aadama dafa soxla investment uh, accredited uh, uh, to suñ ko joxut rek pour nekk nekkal so ñu ngi awal li yëpp pour ñu xam ne am nañ ay yaay jabar rata bu jigéen mag yu jigéen te ñooñu dañ leen war new support dan so that nyom ak mun a dimbale dëkk bi mu mun a dimbale réew mun a dimbale njaboot bi parce que euh, soo xoolee Gambie fu nekk euh, jigéen ñi bëri nañ euh, wàlli xaaru asamaan bi mun naa ko ñoo ko téye te ñooñu su leen dimbale dañu bàyyi fuñ téye asamaan bi adam soo fa mu dimbale leen yow fuñ téye bu baax ba sudat ñoom ñaar yi mun nañoo dimbal dimbalante ah, dëkk bi dem si kanam njaboot ah, yi tamit mun a mun a am mun a dem si kanam waa imam bi ñu demee ya, seetaan loolu nga ya, xam ne waxtaan boobu laa amoon ak kilifa yooyu noonu ñuy ñu doon wax about gender based violence maanaam jigéen yi nga xam ne dañ leen a bundu xatal xam nga bundu xatal sa nekkul ne like dur borom la rek baare saaga ko waa am na yenn wax yoo koo wax di ko ooyee yenn tur di ko jëf yenn jëf yi si biir ne dafa tax ba borom ñeneen ñi mun nañ see jëlee dof sax mhm. naka naka la islaam gisee eh, euh, façon yu problème jërëjëf yal eh, nañ yàlla jàppale ma ne bunta bi bu nga laal nii bunta bu am solo la ci mm. diinal islam mm. xam nga sëy sëy jaamu yàlla la de mm. sëy mm-hmm. sëy jaamu yàlla la nit yi ñoo de foog ne sëy dafa mel ni mbuba bu nga xam ne soo ko buggee nga sol ko soo ko buggul nga génnee ko nga simi nga aj ko fale mm-hmm. déedéet mm-hmm. sëy sëy jaamu yàlla ku sëy sa ak ku sëyut seen jaamu yàlla tiyaabo bi du dee em sax dafa mel ni qualified teacher ak unqualified teacher xanaa seen salaire dafa em joolaa dem na jàngale de <laughs> emuñu aja <laughs> uh-huh. mota yonen yalla bopam mune ci alquran wa ashiruhunna bil ma'ruf mune so leen amé jabar nga dunda mum dunda bu rafet bul ko heb bul ko saga bul ko dor dor bu nga xam ne di nga ko torhal nga dor ko be nga gañu ko o nga dor ko be nga torhal ko way way loolu tamit daw na yaram yàlla lu mu wàcc alquran mooy wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun yàlla mu ne lii suma kemtaan la mm, góor foo nekk rek góor mm-hmm. noo munta mel mm-hmm. soxla nga jabar mm-hmm. soxla nga jigéen ku nga la motale jigéen tamit foo munta nekka loo munta am am soxla nga jëkkër nga xam ne moo la tax nga mu tale waaw dafa mel ni ñaar yu des nga boole la waaw waaw fii fifty fii fifty mu nekk hundred mm-hmm. dalasis mm-hmm. nga jënd li nga soxla mm-hmm. loo bugga ñu ne bii fifty dalasis eh hundred dalasis la yaa ngi amee fifty soxla nga beneen fifty góor ak jigéen noonu la yalla mu ne góor ak jigéen noonu la ah waa léegi-léegi imaam doguma la sax léegi-léegi nga gis jigéen boo xam ne mu ngi séyoon place. waaw dóor moo ko fa génnee. waaw waaw mu dem ba mu ragal sax. Mhm, pour mhm. bugg siyaat war a siyaat. feneen lan nga koo edda as ne yow imaam nga. waaw te nga alxuraan bi sariya bi. Mhm. dafa war a gom lu nekk wërsëg la. lu ko lu ko daloon fale ci foos jëkkëram bale. mun naa ne ka su demee ci beneen jëkkër yàlla jox ko jëkkër ku nga xam ne. dina am de ci mom comme yonent lu mu wax am nga yonent lu mu wax dafa dig digal goor yep mu ne usikum bin nisa'i khayran usikum bin nisa'i khayra fa innahunna khuliqna min dilil a'waj fa idha masayta litukawimaha kasartaha wa idha izdadat izdad wa idha istamtata biha istamtata biha wa fiha iwaj yonent mu ne yeen goor yi ma ngi len digal goor bu nek nga am yeremande ci sa jabar nga am yeremande ci sa jabar nga jàppale ko ja nga téye ko téye bu rafet mel nii sa doomu la mbaa mel nii saraka bu jigéen la comme yow ni nga buggee ñu yoree sa doom mbaa saraka nga gis ko ci beneen góor ci téye bu nga xam ne dafa rafet mm-hmm. yow tamit nga téye doomi jàmbur comme nu comme ni nga yéenee sa doom o ni nga yéenee saraka bu jigéen comme nu mu amee su amee sëy bu rafet mm-hmm. yol yonent mu ne góor yi yëpp noonu la ñu war a téye seen jabar yi tamit. ok Imaam dafa am euh, yenn góor yoo xam ne dañoo daanu si xalal maanaam xale bu jigéen bu ndaw. nga gis góor gu ponkal ñoo daanu si kawam lu tubaab bi di wax rape sexual harassment euh, mun ngaa mun ngaa daanu si kaw jigéen léegi léegi mun ngaa gis xale boo xam ne muy si biir kër sax. moom moo yaayam ñoo fa nekk nga gis yeneen kër yeneen néeg yoo xam ne yeneen góor ñoo fa nekka di ko luwaas bés bu nekka ñoo ñëw nee na sa doom bi def ma ne ñu jël ko waaye fekk suñu yóbboo sa doom boobu noonu muy doom bu jigéen bu ndaw boobu seen néeg dinañ ko foyee foyee boo xam ne def dafa mel ni ñoom dañ si am sexual pleasure maanaam am si baaneex mhm. daal góor yooyu noonu lan la islam wax si ñoom xaraam xaraam islam lu mu diggal góor yi yëpp mhm. mooy yaa ma'ashara shabaab yonent moo oote mu ne yaa ma'ashara shabaab hey yéen doom góor yi man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj képp ku nga xam ne mus nga eh, eh, gis nga ne yow léegi mënu nga denca jigéen mënu nga denca jigéen nga dem ci mbokkam mi comme ñun suñu aat bala bala bala islam sax ci jamono yéeféer ya bala islam ku bugg jabar rek di nga dee dem ci mbokkam yi nga ne man dama bëgg seen doom dama ñaani jabar suñu la maye fali lay li xam suñu la mayut jigéen yi bëri nañu demal feneen loolu moo gën nga dugga sa boppa ci lu nga xam ne loolu baakaar la waaw yonent ti ne soo gisee jabar bu nga xam ne bëgg nga ko demal ci kilifaayam yi nga ñaanal ñaani leen suñu la joxee fali lay li xam suñu la joxul fali lay li xam nga dem feneen oo nga oor soo gis ne man léegi fu ma nekk ni bëgg na takka jabar waaye aw ma alal aw ma dara nga oor léegoo-léegi nga or tey nga lekka gannaaw-léegi nga or tey nga lekka li nga gis lu nekk feeling bu nekk ci sa yaram bi yàlla dinaa ko wàññi ngir oor bi ok léegi imaam dafa am tamit ñoo xam ne dañ dee am ay xale yu jigéen yoo xam ne dañ leen a liggéeyloo seen këri waaye buñ leen liggéeyloo ba pare tamit si ko liggéey boobu noonu ba léegi nañ leen def yéen a naka sudul noonu ndax mbindaan boobu noonu moom it bokk si gender violence bi nii nga xam ne a ah, kilifa yi ñu ngi koo wax pour nit ñi di bàyyi xel mbinaan yooyu noonu. comme duñ ko def fay. déedéet mun nañ laa fay sax. Mhm. waaye fekk ne tamit léegi-léegi ñun laa def comme like yow seen jabar nga si kër gi. Oh, haram haram haram bari nga dem liggéeykaay. Mhm. nga gis eh, boos bi di wax ne boo tëddut ak man du ma la jox liggéey mbaare duma ma ah, sa sa sa place. loolu lu la lu haram la. loolu ku wax képp nga xam ne. am na bo sa boos ku la wax loolu mm. mbaf liggéey kaay fu nga dem wut liggéey ñu wax la loolu mm. nga gom yàlla moom moomee wërsëg yi moom lu mu am ni mm. judóotaa moomu de mun naa ko ñàkka bala mu gaañu yow tamit munu nga yalla ubbi sa nga am alal bu nga xam ne moo ëpp alalam génnee foofu nga dem wutu feneen fu nga xam ne di fa nekk nga am sa sa eh, sa liggéey nga am sa xaalis ak ci sa ñax loolu moo génn. ak ak ak ak wérgu yaram. waaw ak nga léegi léegi benn moo si des. Mm-hmm. ah mooy ne jigéen ñi tamit léegi léegi ni dee solo pour dem liggéey. na nga sol loo xam ne sa ween yëppan si biti mm-hmm, mbaa nga mm-hmm. sol loo xam ne sa ndiga bi yëppan si biti ndax boobu tamit du tax ba boos bi si boppam xelam nekk si yow lan nga aida jigéen waaw yeneen tamit dëgg dëgg aja jërëjëf waay loolu yeneen yi sax jigéen yi ñoo deen xoos loolu suñu solon rafet comme diiné nu mu buggee nga sol sol bi iw jigen sol sol bu iw rek la wara sol mm. so solé non même ci yoon bi sa do degan bandi jigen bu nga xam ne de dafa ibadu nay sol nay su nekkee di dem rek soko ko kenen keneen ki su ko piisee mu ko nga dof mm-hmm. gis lo ki ni mu solee ki ki ki waaw parce que parce que mag ñi rek ndé woon ñu né ñu né so buggé sa sunguf mu mu ka benn <laughs> foog nga taka ko dëgg la sunguf bi soko tégué si si suuf bi nonu nga lal ko ngelaw bi dina ko waaw nonu la même ndongo yi billaahi mm. dama dee dégg sax su ma nekkee drom ba rek ñu naan hey boy bàyyil kii de kii dafa am respecte mm. waaw waaye ku sol sol yu dan sol yu dan mbaa yu gàtta mm. léegi-léegi nga dégg mu ne ko waaye yaa ngee baade yaa ngee naas man loolu du ma dee bàyyi kenn dama ko dee waa kaay su ñëwee rek ma ne ko yow ak kii kan moo